ziar bu wér a wér a wér a wér a wér sama confrère yi maa ngi leen di bégee uh-huh. ah vraiment di kontaan lool ci yéen ak seen liggéey bu rafet uh-huh. waaw tey ñu gis ñi nga xamante ne teewaay bi nga xamante ne teew nga fi li nga xamante ne moo ne fi dajale muy métit ak naqar gi nga xamante ne teg ngañ ko seen kaw ngir arrêté lépp li nga xamante ne mooy wàllum rassemblement seen côté waaw euh, tey ku ñëw fii di nga xam ne wax dëgg yàlla ñun mbir mi soxal nañu as nekkul woon loo xamante ne rek dañuy toog di ko wax di def ay vidéo ku ci nekk toog fa nga toog rek di def ay vidéo no respecté nañ ko quoi parce que képp ku nekk sa métier nga am donc euh, ñun musique moo ñuy dundal ñun musique bu dul dara passion la ci ñun donc di ko def jàkkaarloog fans yi rek ñun loolu daf ñuy bégal rawatina nag bu ne leen nag sa métier nag ne la toogal mooy day mel ni rek dañu laa dàq sa bërëbu liggéeyukaay liggéeyatoo defatoo dara te nga am ay charge am ay famille am ñu nekk sa gannaaw ndax ku ci nekk xam na ne artiste bu ci nekk entreprise nga ñi nekk sa ginnaaw di liggéey ak yow dafa bari ñun dañuy liggéey ak ah. ñun dañuy liggéey ak taximaan yi ñun dañuy liggéey ñi nga xamante ne ñooy ñooy par exemple ñooy coiffeuse yi sol yor ay salon de coiffure dañuy liggéey ak euh, ñi nga xamante ne ñooy couturier yi parce que bu ñu amee événement tey par exemple tey mais fans bi dina dem ci ci ci ci prêt à bi jënd yére wala mu dem tey benn couturier ñawal ko est-ce que nga bu paree foofu day dem ci ci ci ci coiffeuse bi mu coiffé wu bu paree foofu li koy andi li koy andi ci ci ci événement bi taxi lay nekk moo xam taxi la wala wala waree ba voilà mais oto lay jël ñëw foofu te li muy def noonu yëpp dépense la kon ñun dañuy contribuer bu baax a baax a baax a baax a baax culture dafa am doole ci réew dafa am solo ci réew bu ñu taxawee lépp dafay taxaw loolu moo tax tey jii ñu ne fokk ñu def li ñu def nii defuñu ko pour dara dañ ko def ci ci ci respect parce que ku ñëw fi tey gis gaa yëpp respecté nañ mesure de barrière takk nañ seen ay masque xam nga civilisé ah ñun taaluñu pën a xeexuñu ñu dara lenn kese mooy. xoolee li dajaloo ci réew ay nit yaakaar naa ni bu doon 100 pour cent 95 pour cent yëpp ay jeunes mhm. naa ni jeune képp ku ko arrêté nga àddunam. mooy li nga wax rek boo ñëwee fii tey jii jeunes yi rek ñoo fi ñëw ah jeunes yi rek ñoo fi teew parce que jeunes yi rek tey jii ñoo bëgg a jor bi gàddu ko muy ci côté musique ak lépp lu mu mën a doon jeunes yi ñoo ci ëpp. xam nga jeunes yi ñooy def cinéma léegi lu ci bëri jeunes yi ñoo koy def moo tax tey boo ñëwee fii defe naa ku ñëw fii boo leen génnee lii vidéo yi bu génnee tey jii mais dinañ xam ne jeunes yi ñoo taxaw tey pour xeex pour bëgg a liggéey donc dañuy wuyee jeunes yi li nga xamante ne Sénégal moom la ñuy taxawee bëgguñu dem fenn fii la ñu bëgg a toog liggéey ko nañ ñu bàyyi ñu liggéey respecté geste barrière yi niñ ko waxee dégguma de bu baax a baax parce que ñun fi ñuy liggéeyee daanaka bala ngaa de ci biir moo xam boîte de nuit ak saal yi fépp bala ngaa de ci biir dinañ la jox gel nga def sa loxo dinañ la jox tamit sa masque nga nga dugg donc voilà xoolal def defal la thermoflash donc loolu rek man defe naa doy na amul leneen luñ ci mën a dolli de parce que loolu mooy loolu wax dëgg yàlla mooy fàgguwaa ah. loolooy farlu donc loolu ñun taxaw nañ pour taxawee noonu fu ñu naan def cent mille cent personnes mais ñu wàññi ba cinquante bu leen neexee wala ba trente mais dañoo bëgg a liggéey liggéey rek la ñu bëgg voilà c'est